Euh, maam Thierno Ibrahim lan la bokk ak dëgg-dëgg borom Touba. Ah, asalaamaaleykum waaw maam Thierno Ibrahim li mu bokk ak sëñ Touba bari na lool ndax mooy ñoo bokk wenn waajur wu góor ah, sëñ Maam Mor Anta Sali ñu tudd Mouhamad ibnu Habiballah Mouhamad moom la ñuy wax Maam Mor Anta Sali Habibullah mooy maam Balla mooy maamam. ibnu maam maaram kon ñoo bokk wenn waajur wu góor waaye dañoo bokkaat tam ci wàlluk ndey ndax sëriñ Touba soxna jaaratu moo ko meññ ñu soxna Mariama Buso borom daaru Muxti maam Cerno soxna Faati Isa moo ko meññ ñoom ñaar ñooñu nag soxna jaara ak soxna Faati Isa seen ñaari yaay ñoo bokk benn baay soxna jaara soxna astawaalo mbàkki la yaayam tudd soxna faatisa soxna absa mbàkki la yaayam tudd soxna ak soxna absa ñoo bokk kenn ku leen meññi muy euh, doomi maam maaram euh, soxna busa mu maam maaram moom moo leen moo leen meññi ahmadu soxna busa moom maaram moom maam maaram mooy waajuru soxna Asta Waalo mooy waajuru soxna ab Mbàkke soxna Asta Waalo jur maam jaara soxna Absa Mbàkke jur soxna Faati Isa Jóob ñu yaayu borom daaru kon mel na ni ñoo bokk waajuru góor ñoo bokk waajuru jigéen eh. waaw loolu wér la borom daaru lu bari looy wax ci moom da ngay dellu rek ci mbindum sëriñ bi loolu sëriñ bee ko bind sëriñ bi bind na ko wax na ko borom daaru muti mooy loxo nday jooram na leetar bu mu ko yónnee am ca wooyu mu ko wax isa ataaka adudi kitaabi fa karrimil kitaaba bil mataab maanaa ni ko yow mii sama loxo nday joor bu la sama leetar bi dëkk dikkalee na ko teral ci tuub dellu ci yàlla sa borom nee na bi mu ñëwee mag ñi werante nañ ci waaye ku ñuy wax sëñ Omar Guèye ci mag ñi njëkk ànd ak sëñ bi la moo ko laaj sëñ bi ni ko fere yi dañuy werante ci li nga wax ci bayit wi ni ko ndax dangaa jublu ni lettre bi nga yónnee Thierno sa loxo ndeyjoor la wala jëmmi Thierno nga jublu ni mooy sa loxo ndeyjoor mu ni leen Thierno laa jublu ni mooy sama loxo ndeyjoor kon loolu mbindum sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa waxaat na ko beneen naar bu mu doon yabal ci borom daaru ñu ko Ibrahima adudiyal ayman seer na ma la yabal mooy sama loxol ndeyjoor sëñ waa wax na ko bind na ko kon loolu du lu kenn di werante